question de parité Lolo, defe naa ni ko ci assemblée nationale bi jaratu ko sax parce que je sais texte yi bien vrai que la euh, législature bi nga xamante ni fa député yi jëm dafa am ay règlement qui ñu respecter minimum 30 euh, de la liste mu paritaire mais ñun dañu wara a ci li nga xamantene moy suñu un article li nga lañ voté à l'Assemblée nationale euh, muy l'article sur le sur la parité donc homme femme dafa war a composer liste mais nous, dañu japp ni euh, les 30 doivent être respecté te respecté nañ parce que liste bi am ñaari goor ak euh, yenen jigen. la question est à agiter parce que xam nga suñu texte ak suñu règlement wu dëkk euh, ak suñu loi bokul amna loi organique buñu voté pour la parité c'est ça qu'il faudra respecter mais quand même duñ ko soulever parce que nak borom bir buy daw sokoy gungé gunge bu dawul bul daw ñun buñu ñu ak ñom ci liste bi paritaire aussi bu ñuy duñu du ñun ci ñom lañu ñu ñom ñoom bëgguñu xéx ñun luñu leen di xéxalé. l'essentiel bi moy respecter na norme yi nga xamné mom moom la CEDEAO wax nee minimum na am 30 femmes te boo gisee ñeenti góor ñaari jigéen loolu moo waral je ne pense pas que ne dëgg la parité ñun nous ko voté mais CEDEAO bu bu laajee 30 des femmes suñu liste 30 ñu ñu respecté ko je suis d'accord. pour moi l'essentiel, c'était de respecter les normes de la CEDEAO. L'opposition, chaque jour moom bu baaxee ñu ne baaxul loolu mooy problème bi quoi mais le reste moom en tout cas l'Assemblée a respecté li nga xam ne moom la CEDEAO wax moom la ko sant respecté na kon looloo na amoon importance. Assemblée nationale parité bu fi jaar liste bu fi jaar respecté nañ ko li fi jaar gis nga jigéen ñi ba mu pour ñu xeex seen seen seen seen wàll ci wàllu vice président yi dañoo taxaw xeex ko ñu jox leen ko. kon lii bu fekkoon ne da koo laaj ñun ñi nga xam ne ñoo ko xeexoon en tant que majorité ñooy taxawaat xeex ko mais lii dañu respecté normes euh, CEDEAO yi moo tax ñun amuñu luñ ciy wax.